nee na dafa wax ni buntu la boo xam ni dafa tudd feebaru yonent bi ak toxoom ci kër gi nga xam ni dafay jeex jëm ci kër gële nga xam ni du jeex mukk maanaa toxoo adduna dem alaxira nee na waana uhdiya muxtaajan ala jalalin daahu fi safarin mawlaahu lilkarami nee na wa daahu nee na woo na ko moom yonent bi mawlaahu boromam lil karami jëme ko aljanna kañ nee na ca aama uhdiya ca atum fukk ak benn ca gàddaay ga waxtaasan bi moom nekkam di aji làq ca yooya jamono ala jëlalin ci juróom benn fukki at ak ñett waaw mu def ko nag ci safarin ci weeru diggi ni muy wooye ñëpp la ko wooye mu dem wujji ko أنا واختار مولاه إذ ملاه خيره عن الزخارف ذا زهد وذا ثمن أنا واختار moom daal tànn na mawlaahu yàlla boroomam daal إذ ملاه waxtu wa nga xamee ni yàlla xajaroo tànn loo na ko mu ni ko yow laa tànn عن الزخارف عن الدنيا وعن زخارفها حال كونه ذا زهد وذا ثمن عن الدنيا وعن زخارفها ah buntu Tamsir Mbodj la woon de ah nanu ko gàmmoon fi teewoon boobu Cheikh Al Khalifa a ngi dund waaw ma ni ko yaa dëgër fit ci diggoot ba firi di jaxase rek ba mu noppee mu ni naa ko ndokkeel ma ni ko qaala al mufassiru ma qad qaala fantabihu inna al mufassira ma qad qaala qad qaala ma ni wa aama uhdiya baytun azzamat lakuhu lidakumu qaala fihi alxibru ma qaala waaw nee na xawaayadan inda baadin fi taahubihi xana raxilu lahu fi yowmihi alcaalami fi yowmi mawlidihi la wax Seydi Xaaj Malik du def benn takalluf ci way waaw bu dee way dafay mel ni kuy bindee wesar waaw waaw du ca def benn tëkalluf dana xaw a laq na mu yetan fukki fan ak ñeent fii te ak xubi yi inda baabin am na ñu ni daal feebar bu wér fukki fan ak ñeent la ko tëdd nee na xaala teew na arraxilu laxas ga lahoo di ñeel ko fi yowmihi alami ci bés ba mu gën a sopp ci bés yi te mooy yowmu mawlidihi bésu altine te ci la wuy ji boromam fii bayti aïcha ti ci néegu soxnaam suñu wax aïcha qabla zawali bi shahri al mawlid al azimi ليلة قيل أو ليلين قد خلتا بلدك تي وقيل في حبه صفحت ولا تنني ف... لليلة قيل أو ليلين قد خلتا ndax dafa am ñoo xam ne naxoo leen moom ak ñu moom naxu waaw ñi naxu moom nag foog ñu diñ diingal waaye ñi moom naxu fu ñu ko fekk rek jàll waaw nee na waqiila neef na sax fi xubbihi maanaam ca fukk yaak ñaar sabxat na nga lëñtu daal wala tanam yi te bul sàggan si alxaj malik ne daal coow la bare na ne lu dul muhammad la tudd abdullahi baayam aminata yaayam ne lu dul lii rek wuute nañ ci ne ndax bi mag ñi laata jóg pour bind mbiram dafa fekk mu xas tarde waaw waaw dañ ciy yéex a jóg mais moo tax lu dul rek Mouhamed la tudd Abdoulaye Bayam Aminata yaayam wute nañ ci lu dul lii rek wute nañ ci. nee na bil qawli nashhari an naddafna laylata arbaa fi jawfi laylin fajri waxtakimi. nee na daal la gën a siiw daal moo di ni ñu ngi ko suul guddi àllarba ci diggu guddi. ne fajri na nga xam loolu waxta ki mi da nga xereñe ko nee na min dahshatin axaru dafna nabiyi wa lishtiralihim man yuwalla kalla amrihimi ah boo amul àdduna tukki nee na axaru dafna nabiyi min dahshatin ngir jaaxle rek dañoo gëlëm ba xaw ñoo mën a suul sax néew bi ak soxlawoo ba ñu soxlawoo woon ku ñuy méngale diif diifu mbiram ku koy méngoo ci ñoom waaye Aboubacar Fadiq moo ko mujj méngoo te Omar ibnul Xattaab moo ko ko waxal ne moom du ko laaj mukk waaye Omar ibnul Xattaab nag moo ni daal ana ku mag ci ñun ñu ni moom mu ne ana ku jëkk a tuub ñu ni moom mu ne ko àndoon ak yonent bi ca xaar ba ñu ni moom mu ne ana ku ko jëndaloon gëléem mu rañaane ko ñu ni moom mu ne ana ku ko gënoon a yërëm ñu ni moom mu ne ana ku gën a baax ci suñu diggante ñu ni moom mu ne kon nag jaayante nag moom teg naa ko fa ma tegoon Muhammad ah tax ñu ñu koy jam ci ni dafa waroon bàyyi jullit yi wote ah kenn dafa mucc am nañu tarif téere yu day na ñey di dàq lu tax muy tànn Aboubacar ah waaw am nañu ci tarif téere yu rëy ni kooku dafa dafa dafa génn ci cadre démocratie nañu di du démocratie waaw ni ñoom duñ ci duñ duñ ko nangu ñu ni moo yàq lislaam bi am na ñu ci bind wax ko lu mel na xeme moom Omar ibn al-Khattab waaye am na ñu bind it défendre position ba ñu ne xam ni tabarkal la ñu nekk ci njubadi ndax dañu wax ni ak démocratie mooy mooy xukmul aksariya وبحكم الأكثرية فديمقراطية واو maanaam ñi gën a bare bu ñu nee diwa mu war a nekk diw waaye nag ci sab Omar mat na junni carte moom ci boppam waaw benn carte mat na junni carte ci ñi naan dañ ko waroon a wati waaw ndax bu doon ñoom coow bari te mbiru yonent bi du lijjanti ko te bu dee moom coow du bari te mbiru yonent bi dina lijjanti ko kon nag benn kàttam junni kàtt la waaw moo tax maanaam bokk na ci bindikat yi siira xaal bu nekk dañu lay won bu dee wàllu juddu ci yonent bi ak wàllu yónni ko dañ lay wax ba muy nekk xaal ba am mel ne xaal bi boog woote ne lii war a am waaye demam itam dafa am lu ñu gis li ñu gis moo di def na xajatul widaa waaw bi bu ko defee ba noppi gis nañ ne ay junni junni nit ànd nañ ak moom gis nañu ni ba mu ca jógee dafa wan nañ ni sax dafay faf soxwaat makka waaye mu dellu ca madina da nga xam ni moom la ko yàlla tànnuloo ña àndoon ak moom te dëkk Najd dem ñibbi Najd ña àndoon ak moom te dëkk Tihaama dem ñibbi Tihaama ña àndoon ak moom te dëkk Yaman dem ñibbi Yaman ña àndoon ak moom te dëkk Xadra Muuta dem ñibbi Xadra Muuta moom mu dox bu jëkk ak ñamu àndal mu yemmi miina al madinata al munawwara waaw waaw ba ñu àggee ca madina mu dal di xalaat ñi bari doole te toroxloo bu ñu pour l'islam te it mu yëg ci boppam ni mi ngi jëm ci mag ñooñu bu leen ci bàyyee bàyyi lislaam bi noonu rek mu fiire leen ni yàgg-yàgg daañu dellu ci jéem a not lislaam bi pour yàq ko waaw muy bëgg a jéem a dogale nag seen pexe nee na ba looloo tax la mu jëkk xalaat moo di mu ñaareel xaswatu mu'tata ndax xaswatu mu'tata ba mu yebalee pour ñu xare ko ña mu yebal ñépp ca lañu des waaw dafa mel na sax làmmiñam dafa barkeel ndax daf ni na diw jiitu ci xare bi bu daanoo na ko diw remplacé bu daanoo na ko diw remplacé bu daanoo na ko diw remplacé waaw ba ñu demee noonu la ñu tegloo waaw waaw ba ñu ñëwee ba ñu yónnee tàgge ko ñooñu le na mu daan def bu yónnee ñu dem jihaat yi ku ca faatu bu ñu ñëwee ba wax ko ko ñëpp dañuy génn seen kër dem daje ji ca këru kooka waaw wéttali ji jigéen ña fa nekk xale togge fa añ togge fa reer waaw mu dem moom it toog bàyyi këram toog waaw waaw waaw ba ñu ñëwee wax ko ni ko Jaafar ibnu Abi Taalib doomu bàyyi tëxam ñu ni ko xom mu siis ko lool ba moo tax mu ñaan yàlla ni ko bu ëllëgee bu ñëpp amee ñaari loxo ca aljanna na nga ma ko ca booleel ñaari laaf waaw faf ñu tuddee jaafar dul janaxayn xam nañ ni lu yonent bi ñaan yàlla dog na moo tax arab yi dootuñu ko wax jaafar dul janaxayn rek lañ koy wax borom ñaari laaf yi waaw waaw loolu tax ñu tudde ko ko waaw waaye ñamu ñàkk ci xaswatu mu'tata ma suñu wér ci xolam mukk bee de naqar rek bee tabarkalla ba mu jógee ca xajatul widaa mu xalaat waajal nag waajtaay woo xam ne mooy faji meram ca natt bu jëkk ba ba mu ko defee itam mu waaj xare bi ba mu sotti kenn desul moom rek a demul keroog mu jël Usaamatu bnu Zeyd benn xale bu am fukki at ak juróom-ñetti nii na jiite xare bi waaw maanaam day taal yi àdduna di bëgg a tukki munaafiqoon yi dal di jóg dem ci Sayyiduna Abubakar ni ko daal li nga ko topp ak li nga ko defal muy jël xale bu tuuti di ko jiital nangam nangam li muy gëm-gëm xolam dal di futt ñu jaar ci Omar ibnul Xattaab ni ko li ngeen ko defal mu jël xale bu tuuti di jiital ci seen kanam xolam futt mel na yàlla dafa barkeel seen lammiñ waaye fekk na moom siyaasa ba tax mu def ko xam na ko ndax Usaamatu bnu Zayd dañ ca rey baayam te mag mënu la fayu ndaw rek a mën a fay waaw du ca betal dara loolu tax mu ni la jiite xare ba waaw ndaw lu mag ñëpp nekk ci ñu jiital ko dana ca def jom du ca benn mag dul def waaw ndaw lu ñu ne xare bi nga jiite sa ña nga jëm ñoo reyoon sa bàyyi dana ca def lu ca benn mag dul def loolu tax mu fekk xale bu am fukki at ak juróom-ñett mu di ko jiital moom yonente bi siyaasa la boo xam ne ñoom seen xel àggu ci waaye moom xelam àgg na ci waaw te yàlla dogal bu mu waxtaaneeg ñoom bu dee ak moom tawte na ñaari weer tawte ñetti weer jant lakk boppam juróom benni weer dugg nañ ci pax gis ko ay fan du lekk du naan te dara ma su ko wokk ñu jékki-jékki gis ci moom si biir bu leen jaaxal loola tax nag ba ñu leen dabee ni leen góor gi kat yaram wi tàng na ñoom it ñeme wu ñu wéy ñu daal di ni toog dellu si ndax daal ni mu foore ci xolu jullit yi mënuñu ko bàyyi ci feebar di dem fenn dama suñu gis mukk wéré ni moom ba yàlla dogal mu tëdd tëddu tàngaayu yaram nelawul mu jékki-jékki dal di woo benn surgaam bu ñoo wax adamu way hiba di ko jógal gunge ma mu topp ko ci guddi gi mu dem ba ca baqee ul xarfat fa ñu suul ñu baax ña waaw da wetu Madina la nekk mu ànd ak moom noonu rek ci suuf su sedd si ba ñu àgg ca bàmmeel ca bàmmeel ya moom yonent bi mu dal di wax ni assalaamu aleykum ya ahlal maqabir di leen nuyu wax nañ ne doo dugg ci sëtt nuyoo woo baaxul ndax ñoom dañu koy yëg ñàkk teggin lañ koy jàppe waaw waaw waaw téere yëpp tege nañ ci nii ñi ci barzax ñu ngi ñu ñu ngi janoog ñun xanaa kay li jaxaw koy war li li ma laaj yi Cheikh Kan mii doon laaj ci yor yor li ma li tax barzax amul boutique amul tailleur te ko gént mu nekk fa mbubb lay sol ma ne ko ci sa sunna nga koy génte waaye doo ko génte ci sunna ndax sunnaam xajul ci taafliya